dinañ wax tamit euh, ci génn yi Ousmane Sonko génn ak Jomaay euh, ñu jàngat ko ak tontu bi ci ñenn ci opposition bi amal ak yeneen i ponk tamit jëm ci nomination yi dinañ ci waxtaan lu yaatu bu ci xajee di nuyu El du juuf ci régie bi Abdou Top ak Ablaye Diallo ñu fa yéene nag tey jii ñëw ci limogeage yu Cheikh bi. lu tax mu mën a doon événement ñu mën ko waxtaanee Cheikh Dieng bu ONAS jiite woon fii Soprosen wala Aprosen ci jamonoy Laay Wàdd doon ingénieur bu mu juumul min loolu liñ ko dénkoon xam na ko kenn du wax xamu ko de affaire environnement affaire yu bari boroom xam-xam la nekkoon fi maire Jidde Caaray kaw nekkoon PDS dugg coalition Diomaye bokk ci ñin ñi ko nomination am sax bettoon na ñu bari parce que moom ci coalition Diomaye doonu woon ku ci gën a fes wala boog ñu ci gën a ràññee waaye tam politiquement doonu woon peut-être koo xam ne li mu leen doon apporter bari na mais xam-xamam dama jàpp ni moo taxoon ñu tànn ko après trois mois est-ce que lañ ko santoon. def na ko est-ce que matal na ko wala matalu ko parce que képp ku ñuy dénk mbir dina am lu ñuy tubaab naan contrat d'objectif contrat d'objectif mooy ah sant nañ la lii lii lañuy xaar ci yow wala mu doon ab cahier charge bu la jox na la lii kat nga nar a doxee est-ce que doxe na noonu parce que d'après information yi ñu ci jot a am ci limogeage bi dafa tombeek nawet acteurs yi yëngu ci wàllu inondation yi am na ñoo xam ne jubóowuloon ak ñoom wala déggoowuloon ak ñoom ak yenn ci boroom xam-xam di techniciens yi nekk ONAS da leen bedd woon ci liggéey bi loolu la ñu wax maanaam daal ñëw mais daal jubóo bi waroon a am ci biir ONAS parce que olof yi denn ab yan bu diisee dañ koy jàppoo jubóo boobu daf mel na amu fa woon ak taxawaay bi parce que tamit comme ñi ngi ci biir dakaar li jëm ci wàllu assainissement boo musaan a romb man dama daan poser sama question yu bari qu'est-ce qui se passe quoi parce que assainissement bi aussi desoon na da ngay romb fu neen ndox mi di fa ball même avant nawet bi avant muy taw sax ngay poser question lan moo xew loolu nag mun nga ni liggéey ONAS moo desoon mais askan wi am nañ ci wàll parce que am na ci ñoo xam ne bu ne nawet jib na rek dañuy ibbi seeni i foos mi wala ngaan ci mbedd mi loolu moom nit ñi la lu directeur du kenn loolu moom manque de civisme la manque ñàkk a mais taxul tey jii ñu jug am na ñu ne dafa tey jii ci journal yi oto bu quatre-vingts millions bu mu jënd yooyu yëpp mais yooyu yëpp ay wax la yu waxagum parce que kenn déggagul Cheikh Dieng mais aussi ñi ko fi jëlee waxaguñ ñu lu tax ñu jëlee ko fi te nag képp ku ñu nome war nga xaar bis ñu gome la maanaam képp ku ñu nome war nga xaar bis ñu gome la parce que. no nomination moom ab tabb la rek maanaam daf mel ne sa tour crayon la nga ko bindee crayon heure bu ne mun na ko gome kon mun na bañ nan événement mais pourquoi ñu jël mbiri Cheikh Dieng parce que ñun xam nañ ko ñu ni nekk ci banlieue bi xamee nañ ko xam-xam waaye yu bari peut-être nag am na yeneen yu kenn mënta wax est-ce que buñ koy tànn boobu nguur gee ngi doog a falu ci wàllu moralité ak personnalité est-ce que defoon nañ ko. ndaxte korog bi may daaneel maa ngi koy wax maa ngi naan euh, ñi ngi tànn rek di tànn nit ak ay diplôme di tànn ay boroom xam-xam di tànn ay nit ndax CV di tànn ay nit ay diw am na masali diw am na lii diw am na lii waaye tànn boobu ñu leen di tànn dafa am lu ci war a jiitu mooy étique morale personnalité est-ce que yooyu ñi ngi koy bàyyi xel parce que boo déggee sax maa ngi naan leen pour pourtant ci biir Pastef am na ci ay arabisants am na ñoo xam ne jànguñu école jànguñu li jànguñu li mais ñooñu sur le plan moral sur le plan étique mën nañ apporter lu bari parce que nag bu jàppee nii nomination yi rek ay borom xam-xam te Sénégal fii borom xam-xam. depuis Senghor ak Abdou Diouf ak Laywaat ba ci Macky moom ñàkku fi mais ay nit ñu nite yu gore maandu bañ a dugal arrogance bañ a dugal njubadi dara lanu rafle woon wala ay nit yu fuy walla yu fuyu bu leen fale ndaxte da lay fal dénk la nga foog ni li la dénk yow yaa ko moom di doxee nu mu la neexee di defee nu mu la neexee loolu tax bi mu doomu Yacine Fall gi gis-gis bi ci nit ñi amoon ak bu mu ci amoon wute naam sax nee nañ du népotisme mais côté boobu lañ doon waxee sur le plan éthique ak moraal ci yu bari parce que nag réew mi daa am fu mu jugee am fu mu jëm doxalin yu njëkk ya yooyu waratul am maanaam doxalin yu njëkk ya li tax ñu mere abdu Diouf lu tax ñu mere Laye Wade lu tax ñu mere Macky Sall loolu waruñu di ko gisaat loolu nag bari na ci li koy indi mooy. ñu ne anti système ba pare jël nit ku bokk ci système bi dugal ko mun na ne parce que Cheikh Dieng PDS la Cheikh Dieng système la peut-être ligne directive bu Pastef ak idéologie bu Pastef peut-être des na ko épouser parce que Pastef leneen la woote rupture leneen anti système yeneen i gis-gis te loolu gis-gis yooyu ñoom ñu am. gis-gis yooyu ñu am mun na wutee gis-gis ak ñeneen ñu fi nekkoon kon des fois dans les nominations des fois nga dégg ñu ne diw allié la diw bokkoon na Yewwi diw bokkoon na fii coalition Diomaye coalition Diomaye c'était une coalition électorale ak une coalition circonstancielle boo xam ne rek jikko boolewu leen mais jamono moo leen boole woon jamono maanaam jikko boolewu leen woon mais jamono moo leen boole woon bari nañu bokk coalition Jomaay gëmuñu projet Pastef ah. benn jamono doo ñëw rek dugg parce que xam na ni c'est le candidat le mieux placé mere nañu Macky Sall ay mer gemb dem ànd ak Jomaay loolu tax nag une coalition électorale bu élection yi jeexee coalition bi daa war a tas parce que une coalition électorale ak bokkul ak une coalition politique parce que une coalition politique mën nañu ànd. nekkat de comme ni Benno Bokk Yaakaar doon doxee ak Nomin Sène mais coalition Diomaye c'était une coalition d'exception loolu tax du képp ku nekkoon ci coalition bi rek yaa baax du ne parce que loolu waa Pastef war nañ ko jàng parce que boo xoolee ni Yewwi Askan Wi doon doxee mais Yewwi Askan Wi bari na ci ñoo xam ne lu metti Pastef ñoo ko teg ana Déthié xalifa ana baax ana pour pourtant ay membre loon ci Yewwi ay membre loon ci yi te pourtant ñoo tee Yewwi coolee fi ne mais ñoo tee Sonko nekk député ñoo tee Diomaye nekk député à un moment donné ñoom ñëpp danoo war am na sax ku ci waxoon ni Sonko gënuñu ndey gënuñu bàyyi du ma wax kan la parce que je n'aime pas citer des noms waaw lu tax ñu koy xeexal pour mu dem au pouvoir ñun ñu taxaw di xaar boo xoolee même ci élection présidentielle yi booy déglu élection présidentielle ni am na benn jamono ñu bari ñu ngi doon wax deuxième tour mais bu ñu demoon deuxième tour duñu jàppale Diomaye ak Sonko ah dañuy ànd ak Amadou Ba xeex ak Sonko ak Diomaye yëkkati seen mooy def ci am na sax yu ci xew yu kenn mënta wax waaw yu kenn mënta wax parce que bi ñu demee ba élection yi jege boo xoolee discours yi bari dafa changé gars yi bari Amadou Ba leen gënoon a jege ci seen discours ñu bari ñu nekkoon ci candidat ci élection présidentielle Amadou ci seen discours dem lañ jëliwaat discours yi surtout ci campagne bi Amadou Ba leen gënoon a jege ci seen discours dinaa ñëw ci kanam ci ak Amadou Ba dinaa ci ñëw ak euh, démb Yérim nu mu ci waxee yooyu loolu dinaa ci dikk pour walla ni rek ni coalition yi des fois coalition nandite la rek coalition nandite dóor marto circonstance la xam na ni waa day falu kan la ngaamu pour dem mais bari na ci ñoo xam ne ñu bari li leen découragé mooy bu gouvernement bi ñëwee ñu gis ni gouvernement ay technocrate ñoo ci ëpp ay borom xam-xam mais am na ñu bokkoon coalition Diomaye ñu bari noo jàppoon ni dañuy nekk ay ministre maanaam séddoo mais bis bi sonkoo ci élection présidentielle yi waxee ni ca Mbour mooy bi ñuy tëj campagne bi fii kenn du fi séddoo kenn du fi paacoo ci la ñu bari seen yaakaar tas ñi jege ci coalition bi poste leen bëggoon wala boog ñu ut fu ñu làqatu ji te bari na ñoo xam ne du Sonko leen gëmoon wala jomaay mais bëgg fu ñu dugg wala ay nomination waaw bëgg fu ñu dugg wala ay nomination léegi nag loolu bu amee ci ñoo xam ne seen pas-pas dafa des seen bëgg-bëgg dafa des nga jël leen dugal leen mooy waral nga fal leen li nga doon xaar ci ñoom doo ko am waaw parce que du ku bokk coalition Jomaay rek da baax du ku bokk Pastef rek da ngaa baax parce que li ci Sonko li ci Jomaay mun na bañ a nekk ci ñeneen ñi parce que des fois li nekk ci ci yow li olof yu naan li nekk ci yow xam nga ko mais xamoo lu nekk sa njaboot kon loolu dafa laaj njàngat ñu bàyyi xel bu baax léegi nag li avertissement la li naan un homme averti en vaut deux. Cheikh Dieng la yat bi njëkk a dal mais dina dal ñeneen dina dal ñeneen parce que des fois nga dégg dans les nominations nga poser question ci kii lu tax ñu fal ko est-ce que war na falu est-ce que fi ñu ko teg mën na ko est-ce fi ñu ko teg xam xam na ko est-ce que projet bi Pastef teg kii ni muy doxee méngoo na ak projet bi loolu tax lii avertissement pour les autres parce que am na ci ñoo xam ne Imam Dramé wax na mais il a mal parlé peut-être waxinam waxinam waxinam mais am na ci ñoo xam ne fuy nan fuy nan kenn du leen jot kenn du leen dégg ñu ngi ci yeneen aju ci ci kaw am na ci ñoo xam ne vingt quatre heures balaa ñu leen di nommer nit ñi dañ leen daan jot wala ñuy woon nit ñi di leen jot di woolee les journalistes di wax ak ñoom di ut ay plateau tey kenn mënul tu leen jot invité leen les mêmes comportement yi amoon ci Macky mooy am ci ñoom te ñooñu ñi bari na ci ñun fal nii ñoo xam ne fal na leen nam nitu Macky Sall doon doxee noonu lañuy ñuy doxee keru nanu fuyu nanu war nanu ginnaaw nit ñi faaleetun kenn pour ñoom ñi ngi seen donkaasi loolu tax jële bii ñu jële Cheikh Dieng ci place am baax pour que ñu xam ne dal leen a nommé képp suba mën na leen fa jëlee léegi nag dindi Cheikh Dieng moo gën a yomb parce que allié la bokkul Pastef mais les mêmes erreurs yi ñuy reproché Cheikh Dieng bu ko ab membre Pastef wala lakko su defee nan jël la même mesure dóor ko ci kawam parce que nag am loo xam ne duñ ko nangu de ñun ñii duñ ko nangu de Sonko ak Diomaye falu nan falu nan rek léegi léegi la ñëpp def kaabu noppi noppi di leen seetaan ñi def lu leen neex am na ñoo xam ne ñoom danoo jàpp ni Sonko bayre bi mu am ak nit ñi bëgg ñoom maanaam ñoom mun nañ wéeru ci sonk rek am na ñoo xam ne politiquement sax defatul li ñu war a def boo xam lan lan lay wax li may wax nii dama ci am lu ma leer bu ko di tudd ay tur ba ci maire yeew yi ngay gis ay maire patriote yi nii am na ci maire yoo xam ne liggéeyuñu xam lu lay wax. waaye nan gérer affaire rek xola bu élection jotee Sonko moom moom la nit ñi bëgg bu wàccee rek ñëpp topp ko pour ñoom yëfi cuune yi ñuy def ak ñàkk liggéey yi maanaam lépp quotient personnel bu Sonko mun na ko lii maanaam ñoom ñëpp Sonko liggéey bi ñu war a def defuñu ko am na ay maire Yewwi maireu patriote ak ay yeew yi yu nu fal depuis deux ans liggéeyuñu dañuy nguuru nekk ci seen bopp di jël ci xale yi nekk ci seen bopp ko ay kii jot na fi nu mu tudd tabaski ñu war a joxe ay lan mooy aide yi ñuy joxe ay juróomi junneeg ay soble pomiteer am na maire yu bari jox joxewuñ ko ren waaye ñun la nguur gu bees yow deux ans nga fi def bul taafontoo nguur gi nguur gi day doog falu mais deux ans nga fi def électorat bi nekk à la base te maire caractère social la am les neuf compétence décentralisées li nga war a def doo ko def nga ne non kenn du ko wax quoi parce que parce que la bokk Sonko laa quoi te élection yi bu jotee man bu ma nekkee candidat Sonko moom may campagnal lépp ci kaw Sonko lañ ko dóor li may wax ni yàlla na ko dégg. pour ñoom Sonko mën na régler problème yi quoi dañu war a liggéey te xam ne ñoom waruñu doxee comme ni Ablaye Wade ak ay meeram doon doxee wala sonk ak ay meeram même directeur yi nii peut-être booy doog ñëw mën nga làmbatu booy doog a ñëw mën nga làmbatu def euh, limtu état des lieux mais il faut que arrogance bi. ak suffisance yi ñu wàññi ko ñoom ma mais am na ci ñoo xam ne ils sont suffisants pour ñoom falu nañu dégg jeex na quoi léegi projet bi moo nekk au pouvoir waaye sonk la sénégalais yi bëgg sonk mooy régler lépp Sonko moom xoolal bu wàccee ci terrain lu cool yi bari bari da koy régler Sonko mënul nekk fépp mënul nekk fépp mënul def lépp. bi mu nekkee premier ministre dafa jël ay ministre teg leen ñu teg ay direction ba falu maire jotee fal na leen ba falu député ja fale jotee fal na leen mais mënul nekk maire ci seen place nekk député ci seen place nekk directeur ci seen place nekk ministre ci seen place dal leen di fal wéeru leen pour ngeen liggéey kon li teg Cheikh Dieng yi mooy wane ni fekk ci kanam dinañ dàq ñeneen te Sonko ak Diomaye laay wax ku liggéeyul nañ ko dàq. ku ci sàcc xaalis walla nga luubal ñu teg la fan la war a teg loolay dëgg loolay dëgg léegi bu weesoo nomination yooyu am na beneen mbir bu am am na yeneen ni mbir yu am da ngay gis ni opposition bi commencé di jógee loolu tax ñu war a liggéey parce que bu la yàlla nattoo nga am opposition bu mel ne bi ñu am nga war a job de parce que ñi ngi jàpp confiance ñi ngi jugaat ñi ngi jugaat te jug bi ñuy jug li ci gën a dangereux mooy da ngay sentir ni da am lu nekk ci seen ginnaaw te mos dégg am ku ko wax waaye li may gisee nii dafa mel na ñu nu suñ opposition di doxee sunu France génnu ci man loolu laa xalaat bi ci mujj nag mooy les tirailleurs bi ci ko waxee France na juróom benn joxe ay chiffres yu ko neex dem sax ba jàpp ni sax ci biir ay waxam ay africains ñoo doon reyante seen biir ja maanaam bëgg ci génne la responsabilité de la France quatre-vingts ans après ñuy waajal mbir mi war cee taxaw Sonko bind ci ab kayit di sàkku ci français ñu gën ñu jox orma mais gën ñu respecté mais gën ñu jox suñu gëdd mu def ko sans langue de bois mu doon question boo xam ne dafa waroon doon consensus consensuel doon ab question d'intérêt national boo xam ne warul doon mbiri politique ay mbiri terrailleur kenn ko lii ji nga le génocide rwandais depuis 1994 Rwanda mi ngi ci am ay ndam France dem na ba jégalu Rwanda ñëw maanaam Emmanuel Macron dem di jégalu Rwanda Rwanda te loolu xamul lu ko indi mais Rwandais yëpp danoo ànd nekk ci ginnaaw benn nit di Paul Kagame mu porté ko am fulaak fayda audee ni mu la gisee rek la lay ëwalee looloo tax ci question bi warul woon doon une question politique ba opposition bi ñi ci mel ne ay Thierno Alassane Sall ñu ñu nawee leen xam-xam gën di ci tontu gën di ci tontu te ñu bari danoo jàppoon ni Thierno li ci Sonko moo ne ci moom parce que gisoon nañ fi contrôle total pétrole ak yooyu ja loolu sax lan la woon lan ko jëlee woon ci ministère am ñëpp gis ni bañkat la. dafa am question yoo xam ne bu ko Sonko yëkkatee comme mbiri tirailleurs yi question de souveraineté suñu diggante ak France buñ ko def une question politique bu nu gis jëmmi Sonko ji wax jëmmi Sonko ji amul solo xam lu ci am solo la muy wax dafa am loo xam ñun ñëpp dañ ci war a déggoo dañ ci war a déggoo mais ni ci opposition bi taxawee après tu te poses des questions est-ce que du tubaab yi. ñun dañoo jàpp ni dañoo xees rek mais est-ce que du ay tubaab yi ba tey jii dañ fi ne am fi ay représentant di ay tubaab yi ñuul parce que après le discours de Diomaye ci JO e yi discours de Diomaye ci JO e yi ñëw wax am nañ ne non non courtoisie républicaine danoo waroon a gën a courtois nga gis seex Yérim Diouk Thierno Diouk Bougane Diouk keneen ak jullit di leen après da nga naan ñi est France suñu opposition bi France nekkul seen ginnaaw est du ay intérêt français la ñuy défendre parce que nag heure bu Sonko dooree ci France rek da ngay gis ni ci ñuy opposant yoo xam ne ñoo waroon nekk fii sàmm réew mi gis nañ fi Bougane Gueye mi sol fi Cheikh Anta te Cheikh Anta lu mu ñàkk ci politique France moo ko xañ ba ci agrégation bi mu doon def yow nga ni. da nga gëm réew mi daf ci am loo xam doo ci ànd ak France ba ku dal ci France nga génn di ci tuute bu mënul woon ànd ak Sonko maanaam domaine boobu bu dul ànduñu ci ak Sonko dañ ci war a noppi rek mais ñoom daf mel ne duñ déglu Sonko li muy wax wala li muy bind ñu koy jàng mais jëmm ji jëmm ji di nga nag loolu buñ koy yàgg di def ñoom di ko opposé duñ gaaw dab gaay de duñ fi gaaw jële gaay de parce que nag opposition bi ñu koy defee dafa dafa xaw a soof loolu jawar président bu gàddoo saag bi ñu ne saag bi bu da doxee ci tapis rouge naan tapis rouge ba xoolal ni muy doxee ni muy waxee dégg naa ci koo xam ne mu ne président na la mu ne am caisse noire wala fonds politique wala fonds secret ba pare di am salaire moom question bi lay posé te moom ab ànd na fekk Ablaye Wade ànd na fekk Macky ay question yoo xam ne da ngay tu te question la moo xew te tey jii ma nga ànd ak Amadou Ba te xamul ni Amadou Diomaye ñoo tolloo diplôme te Amadou Ba moom nee na liggéeyam may na ko mu am milliard impôt et domaine te Diomaye moom ay bor la yor loolu nag am na question yoo xam ne ñoom buñ ciy dugg sax buñ deful nànk dañuy detteelu wala ñu daanu wala ñu xeeb leen ci parce que wala fi dañ ne fépp fu ñuy rendee kenn du fa jooy góom way wi këpp gaal kenn du ko way ci tefes rawatina nag nga nekk ci biir géej gi yow munoo ànd ak Amadou Ba ànd ak Macky Sall mi fi bàyyi woon ay milliards maanaam moom bi ñu koy fal nee na huit milliards te toog na quatre ans liggéeyul ci réew mi nekk ab opposant fu mu dem a fa dara yow nga bokk ci Macky Sall di posé wu question ci patrimoine Diomaye kersa boobu sax waroon nañ ko am waroon nañ ko am ci patrimoine boo xam ne ay bor ci ëpp waaw ñoo xam ne nga gis impôt domaine ay agent yoo xam ne ñoo xaalis président bi ak keneen ak keneen loolu de opposition boobu ñu am taxawaay bi ñu am nag des fois nga xeeb leen ki waaye aussi des fois nga def ci njàngat ñu bari danoo ñi ñi danoo foog ni Sonko ak Diomaye la opposition bi di opposé mais opposition pour l'instant dafa am guerre de positionnement man bu ma njor ci seen biir da ngay xool bi ne bërët Thierno Bocoum génn Diomaye génn parce que kii nu mu tudd Bougane parce que li indi loolu mooy la nature a horreur du vide danoo gars danoo falu gars danoo falu mais gis ne dara yëngatuwul Sonko dem grand théâtre door bomb yi rek gars yi jug avant loolu presse bi moo doon opposé mais bi ko dooree ci la maski yi daanu léegi nag li indi loolu moo tax yenn saa yi waa Benno Bokk Yaakaar def une opposition parlementaire yëngal assemblée nationale bi comme ñoom. bato bu amul capitaine la gisatul Mati Macky léegi Abdou Mbow mooy yëngal assemblée bi ñoom côté boobu rek la mën a opposé woo parce que mënuñu woo sénégalais ci mbedd mi na leen génn leen parce que liñ fi def mu ngi fi tege ba léegi munuñu xeexloo sénégalais yi mënuñu mënuñu fi toog sax ci débat di wax lu aj ngooñ parce que nag am loo xam ne ñoom ñamuun toog ci réew mi di ko wax ndax gëm naa ne ay gor lañ kon comme assemblée bi moo leen dese moom lañ jël def ko arme pour bloquer. le gouvernement pour bloquer l' état te loolu buñ koy def dañuy daanu parce que loolu c' est pas républicain léegi nag loolu moo indi ñu dem jëli seex Yérim Oustaz Seck Oustaz Cheikh Yérim Seck sa waa ji na cëpp génn jamono boo xam ne Amadou Ba presse bi mi ngi koy bëgg a jox benn doole gi nga li Cheikh Yérim wax démb ci Amadou Ba Cheikh Yérim dafa minimiser Diomaye ak Sonko minimiser dégg ñu tubaab mosu ñoo yor bureau mosu ñoo commandé kenn maanaam tuuteel leen xam ne daa xam ne Cheikh Yérim naan di teel la yaa ngi dégg mu naan te trois mois mënuñu mënu ci jugé mais li mu def moo gën a ñaaw jugé daf leen tuuteel jàpp leen ay boole puude yu for nguur gi jël Amadou Ba yëkkati ci kaw kenn mënu ko toppee dara kenn mënu ko waxal dara te genn bokk yaakaar yëpp ci ginnaawam lañ jëm te ba fii ak ci kanam. ñi mere coalition Jomaay gi yëpp boo deful nang ci am lañ jëm ndax Amadou Ba envergure bi mu am ak 36 pour cent yi mu am ci élection yi 36 pour cent yi te xamul ni Amadou Ba 36 pour cent yi ñuy am gañewul bureau de vote am parcelle gañewul parcelle gañewul euh, centre de vote am 30 pour cent yëpp Benno Bokk Yaakaar la. Benno Bokk Yaakaar la ak ñi bëggoon a des ak système bi mais du jëmi Amadou Ba mais boo xoolee ñi koy waxal jamono yépp ci presse bi ak yenn chroniqueurs yi dan naan la Amadou Ba 36 pour cent yi muy am moom c'est le leader de l'opposition te lii mu yor bu ci maanaam ñoom dañuy jël xam na Macky Sall defoon na ko fi Macky Sall dafa falu en mille 2019 def cinquante cinquante 58 pour cent Macky bi sa Seck ñëwee dafa jël les quinze pour cent de sa Seck ak yenn alliés yi mu ne lii mooy wane ne en mille vingt 2024 damay fii ba 2024 damay gouverne ak 80 pour cent c'est de la théorie politique Idrissa kii yërëm loolu la def xanam Macky mu doon Macky mu doon wax naan ay 80 pour cent bu Idi ñëwee Macky défaite yi gën a rëy ci politique mu am bi muy ànd ak Idrissa Seck la ko am local législative kon alliés yi ñëwoon fekk yow gañewuñ ko dara ay guy leen mënuñu këriñ xam na wala fi ne guy mënul këriñ te biir ci biir opposition bi def ci bari ñoo xam ne ay guy leen mënuñu këriñ lii nag bu bu amee un cheikh yi mën a jóge fee parce que déglu nañ pendant trois mois jàppuñu kenn tëjuñu kenn ñi fopp alal réew mi ñu bàyyi leen ñuy gunnaan daal di toog ci plateau yi di am fit tubaab nee na sachez le naturel il revient toujours au galop maanaam ngembal saay-saay maanaam ngembal saay-saay day yolom waaye du tas bukki timis boo ko dàqee bu nalaw day ñëwaat gaa yaa ngi ñëwaat te bukki nag bu yobee waxambaane ca doxin la la Sonko ak Jomaay gaa yi da leen commencé di ñeme. gaa yi ñu ngi teg ay pas Amadou Ba dem Touba ñëwaat dañuy peese dañuy peese te loolu te ji nga opposition bu bees bi ngay gis ay booguma ay bugaanam ñëpp ci ginnaaw Amadou Ba lañ jëmi te bala te li koy dëggal mooy ji nga bu deuxième tour amoon am na ñu doon xaar deuxième tour bu deuxième tour amoon Amadou Ba la ñuy dem jàppale ji ndax déggoo woon nañ ci ak moom maa la ko wax am na ñoo xam ne bu deuxième tour amoon ci réew mi Amadou Ba la ñuy dem jàppale ji junj nag doy na borom xel xaayaan ku dégg séeréer wala fi neen ku dégg law bi moo neex jàngali pël. gars yi am na lu ñuy togg Amadou Mack sa force mooy le silence bu doon ab feebar c'est maladie silencieuse bu lay dugg doo ko yëg waaye booy dee ngay sentir ni feebar bi dugg na la kon il faut que Sonko ñu taxaw xam ne réew la leen dénk ñu surveiller seeni arrière te xam ne France bàyyeegu leen opposants yi nagam Sonko ci ay tirailleurs la wax France tontuwul ay sénégalais ay opposants jug di ko tont di ci wax kan moo nekk seen ginnaaw ci loo xam ne question wu Sénégal la ñëpp dañ ci waroon déggoo suñuy tirailleurs ñoom ñu jug du ci tontu Sonko am na lu xew. Amadou Ba tànk bu mu teg dem na tubaa di nga ko dégg ci beneen këru diine di nga ko dégg feneen di nga ko dégg feneen di nga ko dégg feneen le système et toujours là. yëngal leen rapport yi Cour des comptes IGE OFNAC mille milliards Covid yi inondation démb dama dajeek benn ambulant mu ni ma ñun bañuñu ku ñu fi jëlee ñu ak jakarta yi waaye xam lu ñuy bañ sàcc yi ci réew mi sàcc ay junni milliards nguur gi bàyyi leen ñu toog ci tele yi nekk ci seen jàmm ñun ñu bëgg ñu xañ jàmm parce que ñun fi leen doon xaar mooy ñi sàcc parce que alal jooj ñu sàcc buñ ko delloo ci woon ci réew mun na am ambulant yi wàññeeku mun na am yi ñu organiser leen ba ñuy liggéey normalement mais nga ni jakartaay yi duñ daw jeex na ambulant yi waruñu xatal dëkk bi mais sàcc yi moom nga bàyyi leen ñuy lekk seen xaalis déggin boobu la ci nit ñi di am léegi nag le temps de la justice c'est pas le temps de la presse ou de la société mais yooyu il faut que ñu taxaw ci kon di jégalu ñëpp di baalu àq ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm El du Modou Diouf Abdou Toob ak Ablaye lan àndoon nag ci trente minutes euh, chrono di gërëm ñëpp di jégalu ñëpp di baalu àq ñëpp Omar bun Xattaab Gueye mu nekkoon ci kàddu gi kon euh, beneen alxamis incha allah.